xoolee jafe yi am ci secteur bëri na euh, bi ci jiitu mooy la réforme des textes même qui régissent le secteur de l'artisanat ok daanaka 81 ba léegi textes yi daanaka puusul paasul mu méngootul en tout cas ak jamono. Ah soo xoolee même ci chambre de métier yi nañ leen di fale est-ce que vous pouvez comprendre ah, aujourd'hui mm-hmm. ci chambre de métier par exemple euh, président chambre de métier bi carte professionnelle yi moom moo koy bis bu ñu dem ci ay élection renouvellement wala ci ay élection assemblée générale xam nga loolu c'est problématique donc tey gouverneurs yi organiser ces dernières élections là koo ci woowoon ne ko kaay organiser élection yi dina toog xolaat ko bu baax parce que ay jafe-jafe lañ ci am. bëriwoon na waaw tey loolu yëpp bu ñu ñu ko bu nañ ko méngale en tout cas ak ñàkk wet mënoon laa koy tuddee le secteur de l'artisanat mhm. parce que nag ni ñu toll en nombre di ko participer ci réew mi ci développement euh, sur le plan économique ak social comme ni ma ko waxee sànq man jàpp naa ni ñi leen di jiite. war nañoo xool seen jafe-jafe ñu mën di ci taxaw